not in a in a place boo xamante ni dafa comfortable ba yow boo ñëwee dangay ngay dugg rek tëj tëj tëdd nelaw. xam nga li olof di wax naan dof kenn du ko wax yaa moom géew bi da ko mm-hmm. naan ci nga bokk. Mm-hmm. yow duñ la jox ne la demal nga dem liggéey. Mm-hmm. nga nekk sa kër fanaan fa ba bër bu set ñu ne la demal nga dem liggéey olbate ko tegalal lal bu nooy nga ñëw gis ñaari patient dugg si biir ne da nga sonna pour relax ah, dëgg la li nga wax nga dafa nekk loo xamante ne dafa ah, important trop waaye am na ward boo xamante ne ah, ñu ko ooyee six and seven mu ngi RVTH mhm. am na place boo and ne seen nurse yi foofu lañ dee nekk ah, seen locals yi tamit xam nga the association I am just pleading if you people can actually try to see her best you can help those people eh, it will be definitely important because hanga nga man duga na foofu noonu gis naa gars yi seen locals yi xam nga mel nga pare they don't even have um, uh, uh, waaw six and seven si kaw if though if that word can actually be uh, be I don't know renovated in such a way that are you talking about the word the word relax relaxing okay. place fu noose war a noppale ko like pour uh, mu leer rek ok So mu leer ñu understand what you soo demee si biir ward bi you will realize that a lot of things uh actually need to be done there See, see, ward bi Okay. dem xa nga si uh, noos yi fu ñu dee nekka uh, tamit a lot need to be done in that place. Okay. We should actually know that the people working there are our own brothers and sisters. So their life matters, their health matters. So let them be supported. Dama use that just as an example. But our healthcare system, a lot has to be done. Hamna ne kom hanga, there is work going on at RVTH, nyinge ligay, why hanga, at least to avoid some of those problems, let's consider the healthcare system of our health, health workers too. That it. is indeed a very important thing, mm -hmm. definitely, because, uh, uh, uh su so fekente ne ñoom ñooy wara topato uh, malati mm-hmm. te wëruñ. Mm-hmm. loolu tamit wala boo fi ñu nekk mun leen a jox jàngoro. <laughs> loolu tamit it doesn't make sense. Uh-huh. wax dëgg yàlla waaye tamit xëj na ci biir rénovation bi nii ñu nekk di def parce que ñëpp umpale wuñ ne uh-huh. l'hôpital ne Banjul rénovation rëy moo fa nekk moo ñu ngi koo uh-huh. gis li ci kanam du ñàkk mu rawi boot parce que comme ni nga ko waxee six and seven uh-huh. du ñàkk ne ci sampa bi ñuy sampa nii am na foo xamante ne dafa nañ leen ko fa pour ñoom soo xam nga euh, ñu ne kenn du mbéj gémmiñu sàmba te xamoo li muy wëlis comme que ñu ngi sampa te pareeguñ nañ leen xool ba xam s paree nan la ñuy doxale parce que ah. ñu ñëpp umpale wuñ ne ci in between uh-huh. euh, ay at yu néew fi mu nekk nii lopitaan be feneen ak feneen yëpp uh-huh. fu nekk uh-huh. fi mu nekk nii soo demee section yu bari di nga gis doon defeet mu fa ñu ngee tas di defaraat ñu ngee tas di defaraat kon meaning ne definitely ñu ngi am changes yeah this and changes, we uh, changes uh, cannot for. actually be done by one person it should be a collective responsibility to ensure that our health sector is up to standard definitely we thank uh, the, the, uh, association for that noble gesture. Like, lu ñoo def rek moy nga dañoo dem uh, have a short break when we come back we continue komin ngafoña amin doron go komin ngafoña amin doron jos pour kala hakkilo bulandi doron albe a sahel network tv al wala juube kan doron ni min lafta doron pour ada eka programme oto walla lafa pour que message o sen mole na facebook page o be jela andum fanan na youtube fanan be jelan kan na video am nyen upload daming later but our number nyemu plus 22028600150 that is the number plus 220 2860150 that is the number to uh, coming kaka nyamen doram being a, a, a bad day um, soto uh, from somebody so special uh, dëgg la de lay lay la luux <laughs> ba du tuuti borom lay tollool kay lii waaye balaa maa xuus ci loolu damay delluwaat ci nga xamante ne mooy si salon <laughs> démb dafa bad day ko ay xaritam ay doomu ndeyam am di jàmm ñëw teew Aysatu Aysa ñaareel xarit jëkkëram <laughs> il faut sama xarit bi mën a baatare mën a may xaalis kay lii hay kadi mane so seeri kimo yubal fo dorop borom fara